alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk jullit yi gannaaw ba ñu leen dénkee ak ragal yàlla ñi ngi xam ne ñi ngi dund weer bu mag lii di weeru koor suñu boroom faratal ku ci ñun waaye bi muy tudd màggaayam bokk na lu mu wax la ko tax a màgg nee na weeru koor bi ci la wàcce alquran loolu it muy wone ne jullit ñi day war nañoo ittewoo alquran seen giirub dund waaye rawatina nag heure bu weeru koor jotee ndax kat mbokk jibril day daana wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay wàcc yu bari waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu weeru koor masan jot guddi gu nekk da koy wàcceel jibril alayhi salaam muy nafar ak moom alquran loolee dañoo gis yonent boobee lam doon jëfe ay saxaabaam noonu lañ ko ci doon roye bu dee weeru koor jot na bu guddi jotee ñu daje ca néegu yàlla ba di jàng téer bi yàlla bi waaye bu bëccëgee ku nekk làqu fa nga làqu di jàng téer bi yàlla bi loolu la ñuy fekkit waa taabiin mooy borom xam-xam yi sës ca ñoom ba kenn kuñ ca xam mu imaamu malik rahimahullah nee nañ bu daan jàngale ay xadis te jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi daan jóge penku jant ak sowu jant bu weeru koor jotee da koy jël congé jël téeréb yàlla bi di ko jàng guddi ak bëccëg bokk na sax loo xam ne siiw na ci téere yi dañ ne ku mel ni imam Shafii heure bu weeru koor masaan jot da daan féetewoo téeréb yàlla bi daana jàng benn kaamil ca suba daana jàng benn kaamil ca guddi lii mbokk lan moo taxoon suñu borom bi mu tuddee téeréem bi daa di ne ci laa wàcce man ko wàcce ci weeru koor daf ne dafay jubale ci yoonu jub mi ngi noonu suñu borom yàlla mu ne téere bi di alquran dafay jëmale ci ci yoonu njub inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam aay bi yow mi miin la nga xam ne mooy tafsir yi rawatina adwaul bayaan bu cheikh Shinqiti rahimahullah daanaka bind na ci ab téere ci tafsiram ba ca mooy day wone ne ndekete alquran day mi ngi nii du lu ñuy jël di jàng rek waaye alquran day jubal day jubal ci lan mooy lépp loo xam ne aju na ci sa wàllu adduna commencé ci sa kër na ngay jëflanteeg say wayjur nooy jëflanteeg say soxna nooy jëflanteeg say doom nga génn mu dem ci dëkkandoo yi nga génn mu dem ci ña nga bokkal deret ña nga bokkal réew mi ba baa na ngay jëflanteeg yéeféer yi ba baa na ngay jëflanteeg bàyyuma yi amul lenn loo xam ne jurit dana ca jublu lu dul fekk ca njub gu ko alquran di jubal mu leere ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ba bépp jullit war naa xam lan mooy wàcc waayu alquran ci weeru koor wàcc waayu alquran ci weeru koor mooy mooy weeru occasion nafaraat téereb yàlla bi ngiree barke bi weeru koor am yaa ngi not sa bànneexu bakkan bëccëg bi lekkoo naanoo mu mën a ubbi sa xol ba loolu la alxuraan di niital jëme la ca nga mën koo doon koo xam ne da nga koy taxawee mbokk suñu borom yàlla téeréem bi nee na def na ko ngir xupp doomu aadama yi def na ko ngir saafara la nekkoon ci dënn ya ci mboole mi feebaru bokkaale ya mboole mi feebaru rëy ya ak yeneen yu dul yooyu suñu borom yàlla def ko njub def ko yërmande lépp loo xam ne alxuraan woote na ca jëm ngal la way julit xamal ne looloo gën ci yow sa borom yàlla moo ëpp ci yow yërmande sa ndey ak sa baay moo ëpp ci yow yërmaande sa bakkan kon borom bi yàlla lum la digal rek amal yaqin ne def ko mooy la gën ci man sa borom yàlla lum la tere amal yaqin ne bàyyi ko mooy la gën ci man mu war ci julit ñi ñuy jël téereb yàlla bi di ko nafar guddi ak bëccëg waaye mbokk julit comme munuñu jël téereb yàlla bi di ko jàng ci ab xutba loolee lañ ca man mooy tënk ci benn saar ca saar yooyee suñu borom yàlla ngir yërëm ay jaamam suñu borom yàlla ngir yombalal ay jaamam alquran fukki saar la téeméeri saar la ak fukk ak ñeent alquran suñu borom yàlla jël ca benn saar boo xam ne saar bu gàtt la nekk juróom ñaari aaya kese soo demee baqara fekk fa 286 aaya mu jël benn saar juróom ñaari aaya kese di suratul fatiha def ko mu gën mboolem yi saari alquran yi mboole seen baqara ali imran annasai ak saar boo mën a wax juróom ñaari aayay fatiha yooyu moo ko gën ca yàlla loolu yàlla def ko yombal ko ngiree la gën a màgg ci alquran gën caa am solo góor ña mokkal ko jigéen ña mokkal ko suñu borom yàlla yemul foofu waaye dafa jël saar boobee daa di koy def farata julit ñi war koo jàng ndax bus bu nekk déedéet ndax julli gu nekk déedéet waaye rakka bu nekk wareef la nga jàng ca fatiha mu farataal ci ñun fukki rakk ak juróom ñaar ci bus bu nekk muy wane ne ko niw julit bus bu nekk da nga jàng fatihatul kitab fukki yoon ak juróom ñaar wala nga déglu ko ci gannaaw imam rasul sallallahu alayhi wa sallam ne bépp julli goo xam ni jànguñu ca fatiha julli googu nekkul julli gu baax ay yéen mbokk julit xam leen ne saar wi ay turam bari na bokk na lu ko borom xam-xam yi tuddee mooy arruqiya gannaaw ba ko ko yonent bi alayhi salaam tuddee moo dine ne lenn ci ay sahaaba demoon nañ ci benn dëkk ñaan waa dëkk ba ñu fat leen waa dëkk ba bañ leen a fat yàlla yebal benn jiit mu ñëw matt borom dëkk ba waa borom dëkk ba di waaja de lu ne ñu def ko amuñu ci pexe ñu ne nañ dem laaj mboolee mi ba xam bi ñëwee ci sahaaba yi laaj leen abi saïd al xudri na leen man kay mën naa mocc daal di ñëw commencé di jàng fatiha di ci ëf di tafli buur bi daal di ne xefet loolee ñu fay leen ca la nga xam ne muy ak jur bañ ko indee ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu ne ko ma abu saïd lan moo la xamal ne fatiha lu ñuy mocce la séddoo leen te jox ma ci sama cër loolee mu ñuy jàngal yow julit heure boo xamee ni nii yënga fuy metti sa yaram ngal la way baril di jàng fatiha di ci ëf di ci raay loolee ruqiya la fatiha shifa la min kulli da bépp feebar ngay jàng fatiha di ñaan yàlla saafara la ca mbokk loolu ci sabab yi gën a màgg ca la bokk ngal la way xamal ne mbokk julit rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na ki julli ca tariwul fatiha moo julli lool it moo tax loolee ñu tudde ko assala waaye rawatina ñu tudde ko assala muy julli mooy suñu borom subhanahu wa taala moom moo wax yonent bi salallahu alayhi wa sallam ngiree yonent bi jottili ko xeet bi mu ne man day lii di julli séddale naa ko sama digganteeg samay jaam ñaari parti sama jaam bi danaa ko may lëm ma ñaan ay yow julit heure boo taxawee di julli di jàng fatiha li ngay wax mooy alhamdulillahi rabbil alamin lan mooy alhamdulillahi rabbil alamin loolu mbokk mooy mboole mi sant ñeel na yàlla miy borom mboole mi mindaafoon mbokku mbindaa fa ñu nekk kaw asamaan ak suuf na doon ay malaaka lañu ay nit lañu ay jinne lañu na doon loolu ay bàyyuma lañu wala ay picc lañu wala la gën a saw la nga xamul di bactérie ak microbe ya loolu lépp mbindaa fa yàlla la moo leen moom yàlla moo mën a ñeel na ko cant yépp muy wane ne yow julit heure boo taxawee di julli ba wax alhamdulillahi rabbil alamin cant yi de ñeel na yàlla borom bi ndaafan yi suñu borom yàlla dana wax ak ay malaakaam na leen cay dégg ngeen sama jaam bi sama jaam bi day sant na ma boo wëlbatikoona arrahmani rahim ay yàlla yow mi nga xam ni sa yërmaande ëmb na lépp lu mën a doon julit yaag yéefér yaag bàyyuma yaag lu mën a doon waaye yaay arrahim kiy jagleel yërmaande sa jaam yi nga xam ne dañ laa gëm alaxira suñu borom ne malaaka yi déglu leen sama jaam bi day sama jaam bi mi ngi may tagg sama jaam bi mi ngi may tagg heure boo nee maaliki yawmi diin ay yàlla yow yaay aji moom bis ba nga xam ne ca ngay fay say jaam suñu borom ne malaaka yi dégg leen sama jaam bi day mi ngi may bàkk ay mi ngi may bàkk comme ni ñuy bàkk yi mbër gannaaw ba heure boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ay yàlla ñun day yow dong la ñuy jaamu yàlla ñun day yow dong la ñuy dimmindikoo suñu borom ne malaaka yi dégg ngeen sama jaam bi li mu wax de loolu moom mi ngi nekk sama diggante ak sama jaam ndax nee na man la ñuy jaamu te nee na man la ñuy dimini ko tey jii de maa ngi leen di seedeel ne sama jaam bi moom lu ma ñaan tey danaa ko ko may gannaaw ba yàlla jàngal ñu ngën ji ñaan ngën ji ñaan mooy lan ihdina sirata almustaqim ay yàlla yàlla nag ñu jubal ca yoon wa nga xam ne mooy yoon bu jubba ca loolu mooy yàlla yàlla nag ñu ca saxal waxul ihdina ila sirat mooy yoon bi nga xam ne déppale nga ñu ci te yàlla saxal ñu ci ba ñu faatu ca ngiree ñu mën a dajeg yow ci sa yërmande yoon boobu mooy ñoo yoonu ñan mooy siraat alladina anamta alayhim yoonu ñi nga xam ne yàlla yow yaa xéewal ci ñoom ña ca jiitu mooy yonente yàlla ya ak ña nga xam ne mooy siddiqiina ya ak ña nga xam ne mooy shuhadaa ak saalihiina ya ay yàlla yàlla nag ma jubal ci yoon woowee gannaaw ba yàlla yàlla nag ma musal may jaar yoonu ñi nga xam ne dañ leen a mere ñooñu mooy ñan mooy képp koo xam ne xam ne dëgg gi ba woo ci yàlla ba pare mu bañ koo jëfe ña nekk ca bopp mooy yahud yu bon yi gannaaw ba yàlla wala daalin yàlla nag ma musal ma bokk ci gaayu réer yi ñooñu mooy ñan mooy ña nga xam ne ñoom jóg nañu bëgg nañoo jaamu yàlla waaye xamuñu nuñ koy jaamoo ca ña nekk ca bopp ba mooy ñi nga xam ne dañ leen di tuddee ay chrétien muy nasaraan ya mbokk hadis bi da ngay gis suñu borom ne yonent bi ah suñu yonent bi alei salaam ne suñu borom nee na séddale naa julli loolu day wan ne ndekete fatihatul kitab mooy taxaw place julli ba koo xamee ni nii tariwu ko ku mel noonee jullim baaxul ay yow mbokk julit fatiha de mi ngi nii mu nekk wareef ci bépp julit boo xam ne yàlla subhanahu wa taala may na kom xel ngal la waay mu xam ne aka nekkoon ngëneel ci moom mooy mu fexe ba téereb yàlla bi mu xam lan la téere yàlla bi di wax ak moom ci léppam ndax yàlla dañu ko wàcceel daaji na yonent bi alei salaam leeralal ko nit ñi ca nga xam ne heure boo demee bokkoo ci ñi alxuraan leer seen bopp la gën a rëy ci xéewulu àdduna moom ñàkk nga ko waaye nag ngallawaay yow julit heure boo ñàkkee la nga xam ne mooy téerab yàlla bi it fexeel ba fatiha bum la raw borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ndax bismillahi rahmaani rahim ca la bokkom bokku ci ala kulli xaal xamal ne bismillahi rahmaani rahim mooy la nga xam ne nii maa ngi tàmbalee di dimbali ko yàlla borom yërmande ji nga xam ne moo ëmb lépp di jagleel yërmande julit ña ko gëm ngan la waay julit gannaa yool bismillah bu lekk bul naan bul dugg bul solu jëm ca wanag ba xatta ñaari way dencante yu ànd ngan la waay lépp looy def waxal bismillah bismillah mooy dimbini ko yàlla mbir moo ko wax seytaane daw la mbir moo ko fàtte seytaane jege la mbir moo ko wax mu barkeel ngal la way julit xamal ni li nga wax alhamdulilahi rabil alamin loolu la julit war a taqaayoo mbokk julit daa war a sant yàlla fu mu mën a toll feebar bi ñëw na alhamdulilahi rabil alamin ñàkk alhamdulilahi rabil alamin lu la mën a dal nga sant yàlla ndax lii mu la teg am na ñu la gën fuuf teg na leen lu gën a garaaw téeméer yoon lim la teg ca lii mu la teg maadaama boole na ci bàyyi laag sa xel alhamdulillah maadaama boole na ci bàyyi laag sa diine alhamdulillah su ma la waxee nag ne yàlla dañ ko war a sant ci yi naqari yu neex yi moom taxul may wax xéewal yam lay may ci soxna ci doom ci alal ci dëkkuwaay ci jàmm ci lu mu mën a doon ngal la way xamal ne yàlla rek yeeyoo cant bokk na musiba bu rëy boo xam ne yàlla nattoo na ko lenn ci ay jaamam ñoo xam ne seytaane këf na leen ñu jàpp ne seen sant yépp mi ngi war a jëm ci seen moromu jaam waaye mbokk julit xamal ne yonent yàlla bi day li muy baax baax amul benn xéewalu àdduna wala alaxira boo xam ne mën na koo defal kenn lu dul ci ndigalu yàlla njub gi yenent bi salallahu alayhi wa sallam suñu borom dane ko yow du yaay jubal ku la neex man maay jubal ku ma neex kon mbokk yàlla rek la ñuy sant waaye am mbooloo moo xamee ni nii seen diine yépp mooy dajaloo di sant abou bakar ñee mbooloo moo xam ne seen diine yépp mooy dajaloo di sant ali bi taalib mbokk loolu ci pexey cheytaane la alhamdulillahi rabbil alamin mboole mi sant ñeel na yàlla mi borom bindaafoon yépp heure bu jaam bi di wax rahmaanir rahim ay yàlla borom yërmaande ji ëmb lépp ay yàlla yow miy jéglal yërmaande julit ñi ca ngay jàppe ne ah yàlla day borom yërmaande la jafe-jafe yii may dund ah déedéet ay jaar-jaar la rek waaye yërmaande yàlla léegi mu dab ma bakkaar yi nga xam ne jot naa ko def lu mu garaaw garaaw ah naa tuub dellu ci yàlla yàlla mooy arrahman arrahim sama tuub bu sellee dana ma nangul lii la mbokk ab julit war a bàyyi xel ca amul benn doomu aadama buy dellu ci yàlla ak lum mën a def lu dul yàlla ci yërmandeem dana ko dabantal ci ak xéewalam gannaaw ba nga ne maliki yawmi din yow yaa moom bisu fay ba am nañu jàng maliki yawmi din yaay buuru bisu pay ba loolu it doon lu lay tiital ah ndekete lu ma mën a def ci kaw suuf pay ga mi ngi may xaar allaxira suñu borom mu ne fa man yaamal misqaala zarratin xayran yarah wa man yaamal misqaala zarratin charran yarah loo mën a def ci lu bon loo mën a def ci bàyyi la nga xamee ni ni mooy ay santaane pay ba mi ngi lay xaar looloo tax julit bu xelam ne yar ci rahmaani rahim loolee yokku ko yaakaar yokku ko ndal xel waaye bu xelam ne yar ci maaliki yawmi diin loolee yokku ko tiitaange yoolu loolu yekku ko freiné ngiree ne xam na ne lu mu mën a def pay bi mi ngi koy xaar jamono bi ngay wax suñu boroom naan ko yàlla yow dong la ñuy jaamu mbokk loolu day wane ne benn déclaration la boo def sa kanamu boroom la nga xam ne mooy jaamu ca mooy toroxlu yaakaar ragal sukkandiku wékku cofeel gu mat sëkk doo ko defal kudul yàlla jalla wa ala da ngay gëm ne keneen kudul yow daa war a ànd ak yow ngeen ànd jaamu yàlla moo tax nga ne naabudu iyaaka naabudu booy jàng fatiha doo wax yàlla yow lay jaamu da nga naan yow la ñuy jaamu ay yàlla man jibril ak malaaka ya muhammad alayhi salaam ak nit ña mboole mi jinni yàlla yow la ñuy jaamu yow dong yaa yeyoo ñu jaamu ko waaye yàlla yow dong la ñuy dimbali ko iyaaka nastain julil bi comprendre fatiha doo gis mukk mi daanu na yaa cheikh Thiam du am yaakaar mukk ne barke Cheikh Thiam du ñaanal nit mukk ne ko yàlla na la Cheikh Thiam sàmm bal day xam ne iyaaka nastain ay yàlla duñu sàkku ndimbal ngir jot xéewal duñu sàkku ndimbal ngir mucc ci musiba lu dul ci yow dong lañ koy sàkkoo mbokk wax naa la sànq lii boo ko waxee sa borom lu mu lay tontu gannaaw ba nag nga daal di wëlbatiku ñaan yàlla subhanahu wa taala ay yàlla ihdina sirat al mustaqim mbokk yoonu yàlla xam ko doyul am na ñu bëri ñu ko xam jaaruñu ca kon da nga koy xam muy benn waaye nga ñaan yàlla saxal la ca doomu aadama bi bu jaamoon yàlla juróom-ñin fukki at dem bay waaj a dee teggi tànk teggi tànkam ca la nga xam ne mooy siraatul mustaqim kookee safara la jëm comme ka nga xamee ni nii nekku ca woon waaye avant muy dee yàlla teg ko ca mu dee yàlla ca àjjana la jëm looloo tax ihdina siraatal mustaqim ay yàlla saxalal suñuy ndëgg ci yoonu siraatal mustaqim ba baa ñuy dugg ca sa àjjana ja siraatal mustaqim boobee kan moo koy jàngale suñu yonent alayhi salaatu wassalaam suñu borom nee na ko wa innaka la tahdi ila siraatil mustaqim looloo tax boo bëggee yoonu njub ngal la waay jàngal alquranul karim waaye jàngal ma la nga xam ne mooy yoonu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba it nga xam ne mbokk yàlla mooy baaxe ku ko neex ci ay jaamam dugal ko ci yërmandeem looloo tax mu ne sirata alladina an'amta alayhim yoonu ñi nga xéewal ay yàlla boole ma ci ñi nga xéewal falillahi alhamd yàlla xéewal nañu yàlla yàlla saxal xéewal ci ñun wayeen mbokk julit ndax xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ko doon gis di ànd ak moom guddi ak bëccëg ci yàlla xéewalu leen bañ gëm ko am na ñu bokkoon ak moom benn deret nekk ay arab dégg alquranul karim ci yàlla xéewalu leen ñu gëm ko amma ñun fa lillahi alhamd moo ñu gënal suñu ndey suñu bàyyi moo ñu gënal lum mën a doon ndax gis nañ ko déedéet suñ digganteeg moom junni at ak ñeenti téeméer dox na fi ñun ñi ngi Sénégal ma nga juddoo woon ca Makka faatoo ca Madina loolee kon bu ñu yàlla boole ñun ñu ëpp ci ñun dégg ñu saxla mi ñu arab ñu ëpp ci ñun bu ñu ubbi woon alxuraan xamuñu ci lu bari waaye yàlla baaxaleen ñuy wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mbokk loolu mooy ngëneel bi gën a rëy bi ngay am ci kaw suuf loolee yow ndawal julit bu la ko dara yàqal sa diine mooy xéewal bi gën a rëy la nga xamee ni nii wuñ la boole loon nga jiite Amérique ak Russe ak àdduna yépp ngiree nga génn sa diine déedéet ndax da ngay xam ne am nga xéewal bu ëpp loolu ngan la way sàmmal loolee su ko defee mbokk da ngay gis ne gannaaw ba yit nga bàyyi xel ak réer baaxul mbokk réer baaxul ku nekk ci ñun na jóg jéem a jàngi ñu ngi sant bokk na ci xéewalug yàlla jàlla waala téerab yàlla boobee day ñi ngi koy jéem a leeral fii bu dee ci weeru koor gee bus bu nekk lay doon diggante takkusaan jëm boori sept heures yéen ñi nga xam ne yéen i jigéen ñi am ngeen fi ñaari daje yoo xam ne dañ koy daje fii altine bu nekk ak la nga xamee ni nii mooy alxames bu nekk di fi jàngale seen diine bu dee ne la nga xam ne weeru koor bi mi ngi commencé tisbaar jëm fa mu jeexee loolee kon yow mi dëkk fii alhamdulillah yàlla may na la fexeel jàng sa diine na doon góor nga nga doon jigéen nga la nga jot a xam ci diine it nga jéem koo jëfe ak lu mu naqari naqari nit ñi ca xam ne nag yombul de axiru zaman nga xam diine yàlla ji xam sunna yeneen ci yàlla bi ngay góor wala jigéen ba pare bëgg koo jëfe fokk nga ànd ak muñ fokk nga ànd ak dëgër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jamono ngi ñëw ñii jàng sama diine di ko dund dañuy mel ni ñi ngëpp ci xoli safara loolee kon nga bàyyi ci xel bu baax waaye coono la boo xam ne léegi mu jeex mbokk dundug àdduna yàggul heure bu jeexee sa borom yàlla teeru la ci ajjana joo xamee ne nii amul fenn foo xam ne xéewalam ya yem na fa abadan faw mbokk heure boo jàngee fatiha ba pare waxal amin heure boo déggee kuy jàng fatiha ci julli nga nekk ci gannaawam waxal amin yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na heure boo xamee ni nii imam mi ngi jàng ba yegsi ci wala doolin mboolemi malaaka yi ko dégg yépp dañu naan amin ca koo xam ne bi ngay wax amin dëppoo naag aminu malaaka yi su boobaa day yàlla subhanahu wa taala dana la baal mboolemi bakkaar ya nga xamee ni nii da nga koo jiitaloon mbokk julit da ngay gis lii day mooy tënk bi nga xamee ni nii tënkal nañ leen ko ci fatihatul kitab boobee ñu ngi ñaan mbokk yépp bàyyi ci xel jéem koo jàng jéem koo mokkal di ñaan yàlla subhanahu wa taala weeru koor gi yal na yàlla defal ñu ko weeru xéewal bu ñuy jegeel suñu boroom yal na yàlla def ko weeru xéewal bu ñuy yokkal ak yokkute ci suñu wàllu diine yal na yàlla def ko weeru xéewal bu yàlla di teggee ci ñun mboolemi tiis ak i njaqare waaye yal na yàlla def ko weeru xéewal bu muy jàmmal jullit ñi ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko weer boo xam ne ni daan ci yokkoo xam-xam daan ci yokkoo yërmaande daan ci yokkoo jege suñu boroom yàlla dana ci boole suñuy xol yal na yàlla rafetal suñu mut ci defal ñu àjjana muy suñu wàccuwaay wa ibadallah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد